jàngeen jëf ci ànd beeg seen télévision DTV benn waxtu jot na xabaaru njoloor gi le fes ci xabaar yi bokk na ca ni julli tabaski 2016 tey ji lam ginnaaw séntu bi ak wàccaay gim tey jii ci lañ ko julli cépp gox ci biir Sénégal ci loolu njiitum réew mi président Macky Sall ma nga jullee ci grande mosquée bu Ndakaarum grande mosquée boobee fa la jullee kàddoom sax jot na faa jip jëm ci askanu Sénégal wi ñaanal leen daal jàmm waaye itam naataange daañu si ñëw ci biir xabaar yi ci nu mu gën a yaatoo daañ ci boole itam mosquée omarienne foofa itam daanaka kilifa yu mag ci Sénégal fa lañ julleem bokk na ca Ousmane Tanor Dieng imam ba kàddoom jib na jëm ci askan wi la mu ñaax askan wi mooy jot na ñu gën a sàmm suñuy kàddu xam la ne wax mu juru njëriñ mbaa ñu noppim daañu ci ànd ak El Hadji Moussa Bey Ousmane Tanor Dieng moom itam fa la jullee moom mi nga xamante ni bi ñu ngi koy tudd laam laamee naan bu defu ndànk moom la président Macky Sall nar a dénk au conseil nga xam ne dénk diwaanu Sénégal yi Sénégal wóoloo moom ci boppam liggéeyu Sénégal moo ko tax a jokkoonte ko jël daañu ko dégg ci biir xabaar yi daañu ci boole itam tabaskim ndax am ñetti fanu férié di ak feet ngir ma màggal tabaskim lii ab bëgg-bëgg la boo xam te ni bi njiitum groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar Moustapha jaxate am na kom DTV laaj na askanu Sénégal suñu xalaat ci wàllu gu ni mel daañu ci ànd sa deex toog ci biir xabaar yi niskis faram fàcce gi mbokki assalamu alaykum wa rahmatullah balu ñëpp bal ñëpp di ñaan gën bal ñu ak bu wër di ñaan tam téwé ko ay déwéni déwén tabaski édition 2016 kon ren ji tay ji la won mu doon kon beccëk bop julli lañ ci def ci juma yi ngir kon ñaan suñu borom doti xéewal ci askan wi lu mel non sax taxna njitu njiitum Sénégal président Macky Sall ma nga jullee ci grande mosquée bu Dakar imam ratib kaddom jotna jib jëm ci askan wi ñu teewlu xutbaam ñëwaat na ci dëgg-dëgg solo si nga xam tabaski am na ko ñu teewlu kàddoom ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci muhammad sallallahu alayhi wa ñu ngi ñaan borom bi tabaraka wa taala moom bi nga xamee ne moo ñu baaxe iid gi di nu ko delloosil ci at bu jot comme ndi munu baxé andil indil koor bu koor jexé mu andi korite nonu lanu baxolé andil ñu aj su aj jexé mu andi tabaski tabaski nak dafa am lu muy jàngale li muy jàngale lan la mam Ibrahim mo dund ba am juróom-ñeent fukki at ak juróom-benn am fulli ak fayda di ñaan yàlla mu may ko doom ju baax yàlla may ko ko muy dund ak doomam ba doom ja am fukki at ak juróom-benn kon moom am na téeméeri at ak fukk ak ñaar tëdd yàlla na ko rendil ma sa doom jooju. mu niig ndiigal te yàlla na ko rendil ma sa doom jooju mu niig niigal te yàlla ne ko rendil ma sa doom jooju mu xam ne ab yonanto su génte li mu gént waxyu la te waxyu buñ ko waxee yonant dafa war a appliqué mu ànd ak doomam dem ba ci àll ba wax li ko liñ ko sante ci moom mu ne ko lan la mu ne ko kat man yàlla moo ma wax ne naa la rendi yàlla moo la wax nga rendi ma mu ne ko waaw mu ne ko ifal ma tu'mar defal liñ la diggal sa tajiduni insha allahu min as danga ma fekk ma muñ bu wér bu wóor parce que santaan yàlla xawma ci lu dul def kon dañuy gis ne ñaari nattu ñoo daje ci ñaari nit te ñaari yëpp benn bu ci nekk yàlla moo ko santaane mu doon imaam Ismaïla Samb mi nga xamante ni bii Alioune Samb di imaam bu grande mosquée bu Dakar kàddoom ki nga xam di rek um, Ibrahima Fall moo ko taataan moom ak Sadex uh, Top dañ ñëwaat ba tey ci grande mosquée bu Dakar ndax fa njiitum réewum Sénégal président Macky Sall julleem moom njiitum réew mi kàddum jib na jëm ci askanu Sénégal wi ñaanal leen jàmm ñi feebar ñi nekk ci loxol yoon ñoom ñëpp la la président Macky Sall boole ñaanal ñu teelu kàddu njiitum réew mi. bu sant yàlla subhaanahu wa taala julli si sangam bu tedd Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ñu ngi. yokkaat di sant bi sunu borom may ñu fekkee tabaski ren may ñu itam ñu julli ñun ñëpp daanaka umma islamique bi yëpp ci benn bés lu jafe la waaye sunu boroom may nañu ko ren waa Màkk tey la ñu julli waa Misira tey la julli Sénégal tey la julli li ko wër tey la julli mm-hmm. ci biir Sénégal tarixa yëpp jullit yëpp ñoo bokk bés bi loolu jar na sant yàlla ñu ñëwati fii ci ndakaaru laata ñuy tàmbali julli gi sunu borom baaxee ñu taw bu sell ah, loolu yëpp mat na sant bu baax li ma ci bëgg a yokk mooy imaam mu ngi ñuy fàttali léegi ci xutbaam lan mooy ah, signification bés bii di bésu tabaski di fàttaliku sunu maam Ibrahima bi nga xamante ne sunu boroom digal na ko na sacrifier doomam mu dégg ndigal loolu pour ko doxee doom ji dégg ndigal li yaakaar naa loolu mooy li ñu war a njëkk a jàpp ne nit dafa war a am euh, fu mu war a toll ak boromam war a it xam fu mu war a tollu si digganteem ak moromam loolu jàpp naa ne dégg nañ ko ñoo ko déggandoo xanaa ñun ñëpp ñu bàyyi ci sunu xel ñu sant ci nawet bi ni mu tàmbalee ndax ñoo ko ñaanoon yàlla subhaanahu wa taala yaakaar naa ni même bu amee ay dégâts yu ndaw loolu du mën a ñàkk ndax dégâts yu ndaw yooyu moo gënoon bekkoor te it nag euh, àdduna moom faaw mu am ay tolof tolof waaw kenn mënul nekk rek si loo xam ne du am benn jafe-jafe bindeewuñu doomu aadama ci bañ a am jafe-jafe kon jafe-jafe yi dañu koy song def ci li ci sun kem katan te xamne ne it nag liy ci borom bi wala bok li joge ci euh jawu ji lolu doomu adama mënu ci dara ndax rew yu gëna mag gis ngeen jafé jafé ñu am su ngelaw joge wala bu taw wacce kon nañu wàññi nak joytu bi te xamne war nañu sante suñu borom ndax rew mi yalla def na fi jamm ak sutura lolu moy li nga xamne ne ngi ko doon bëgg wax di ballu ñepp ak te di ballu ñepp ak di wax ne nañu continuer liggéeyal suñu réew ngir Sénégal jëm kanam yàlla ñuy wàccal ay xéewal yoo xam ne mosuñu ko fi wan gis te indi na yaakaar yal na yaakaar boobu bañ tas réew mi jëm kanam eh, ñu ngi sant ñëpp di ñaanal itam suñu kilifa diine yi yàlla bàyyi leen fi ñu yàgg fi lool bés bii may wax ak yéen nag am nañu tiis bu mag muy kilifa ci réew mi président Mbaye Jacques Diop wàcc liggéey Euh, ci kanam tuuti daañu dem teew ak njabootam ngir ñu delloo ko boroomam ñu ngi koy ñaanal yàlla mu wàcce yërmande ci moom wàcce njëgal ci moom te xare ko aljanna ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam mu doon kàdduk njiitum réew mi président Macky Sall ginnaaw julleem fi nga xam mooy ci grande mosquée bu euh, Dakar xibaar yi wéy ak julli it jàppale nim fii tam nga xam mooy ci juma Masalikul Jinaan fii ci kolobaan ñu bari jullee nañu fa bokk na ci ay kilifa ci gouvernement bi ak ñeneen ñu ci bokkul di ay taalibe ak ay bokki jullit foofee sax kaddu jot na faa jib ko mel ni ki jiit gouvernement bi di Mouhamed Boun Abdallah Dionne fa la jullee kàddoom jot naa ji waaye itam ma Madické Niang ndaka noonu maître El Hadji Diouf ñu teelu seen kàddoog Ibrahima Fall man dama ñaaw lu képp ku yëkkati sa baat di wax wax ju ñaaw wax ju ñaaw ak foo ko jëmale politik jaru ka àddina jaruka lislaam daf ko ŋàññi te sëñ bi li moo wax mooy delloonu ci li yàlla wax ak li sëñ Tuubaa bëgg te loolu lan mooy yéene ñëpp jàmm loolu mooy lan dox ba am ñëpp jàmm teewul man ngeen bañ bokk bëgg-bëgg waaye ngeen yéenante jàmm xam ne yéen a bokk Sénégal te Sénégal kenn mënu ko xam ñaar te nit ñi moytu wax ju ñaaw wax ju ñaaw dafay tuutil nit moo tax képp ku ma gis nga koy def su ma xoolee dama lay ñaanal dama lay yërëm ba ñaanal la ne la yàlla na la si yàlla jëlee jàmm lañu wax jàmm lu mu amul du dem ndax bala nga naan naam ne fa te amul jàmm dootal dara sunu réew mii dafa nekk réew mu ndóol réew mu sonn waaye réew mu am jom kon réew moomu dañ ko war a taxawal war koo liggéey lépp lañ war liggéey te liggéey boobu ñu ko mën a liggéey ci bëggante soppante jàppandoo dóorandoo pour Sénégal jëm kanam waaye bu fi nekkee di xiiroo ko ŋaayoo suba ngoon bu ñii di gas ñii di suul réew mi du jëm kanam kon ay gars yi nañ tàppe xol yi comme ni ko si sëñ Abdou Aziz doon waxee àndandoo bëggan bëggante soppante liggéey senegal ndax Sénégal ñun rek ñoo ko liggéey Amérique duñ ko liggéey européens yi mënuñu ko liggéey aman ban ba liggéey na ko ak ñu baax ji fi nekkoon ñun ñu jàpp ci liggéey ko Sénégal jëm kanam ci teraanga senegal yëpp. muy bennoo imaam wax na ko. Nous mu delu mbokku sénégalais yépp yi nekk réew mi pour ñu benno gëna défarat jikoy ci société ci liggéey suñu réew message le dégg nañ ko ci suñu message di message uni autour de l'essentiel c'est-à-dire le Sénégal ñoo ngi ci woo ñëpp ci turu président Macky Sall loolu moom laa bëggoon a euh, retenir tey ci li imam Serigne Moustapha wax daañu ñëwaat ci Masaalikul Jinaan boobee sax ndax Ibrahima Fall ma nga fa woon jot naa gën a def gëstu bu yaatu jëm ci julli beek imaam ak xutbaam daañu ci ñëw jëm incha allah balay xibaar yi jeex faneen fu nu jullee it tey ci ndakaarum mooy fi nga xam mooy di jumaa ju mag ji di yen Omarienne foofay tamit ki nga xam mooy imaam Thierno Seydou Nourou Tall moo daal jiite julli ga moo ko jir ci teewaayu taalibe yu sakkan kaddu jot naa jëpp jëm ci askan yi waaye tamit lu jëm ci nekkin wi ak sunu nekkin ci doomu yi xamante bi bi da nga nek julit war nga yer sa kaddu xam la ngay wax lu mu doon bañu wax lu yàq ci wax lu defarem li la imam xamle dañu ñëwaat léegi incha allah ak El musa bi ci wala gune mel ndax japp ndegul way ci wat gam Ousmane Tanor jeng fa la jullee mom mi jité parti socialiste mom sax ban ko laajee mu tontu mi ngi jëm rek ci mbirum au conseil bi nga xam ñi nga la mais nan mom la ko président Macky Sall bëgg denk Ousmane du do mu réew mi lam Sénégal moko taxaj jog bu ko président Macky Sall da na ko ci wala gune mel ñu lamu dénk El Hadj Moussa Bey li bu jot ak waxtu wu jot imaam bi dina gis loo xam ne moo am solo askan wi mu ko yoon li mu jëmale ko ci mun a suñu làmmiñ parce que nit lu fu mu dugg rek ci ci li ci ëpp ci safaan làmmiñam moo ko fa yóbbu te ni mu ko waxee itam baaxul di dem di liñati euh, li nga xam ne mooy vie privée jàmbur di ko tasaare kooku loolu du sutura te sutura dafa am dafa am solo lu pare pareegul moom di ci euh, wax yàkkamti la waaw comme mbir mi euh, njëkk nañ fal ñi nga xam ne ci base bi juróom-ñett fukki fal nañ leen ba pare mu des juróom-ñaar fukk yoo xam ne président ci boppam moo war a nommé leen nommé ba pare nag président tànn koo xam ne moo koy jiite comme eggaguñ ci loolu nañ xaar rek li ñu des bareetul li ñu li ñu xaar moo moo gën a yàgg. waaw ah, man xam nga comme euh, askan wi laa fi nekkal réew mi laa fi nekkal suñu amee lu yaakaar ne mun naa ko yor jëriñ ci réew mi suñ ma ko joxee naa ci def li ma mën naa leneen ci xibaar mi ngi jëm ci mbirum tabaski mu am député Moustapha Diakhaté jiite groupe parlementaire benn bokk yaakaar xam le ni moom bëgg na ñu dem ba feet tabaski nekk ñetti fanu férié état daal di koy dagg ngir askani war caa mën a feet bu baax DTV laaj na askanu Sénégal ci wàllu googee jàngat bu nu ci am reportage sa dex am ñetti fan ngir mën a féete tabaski xalaat bii nag Moustapha joxate mi nekk président groupe parlementaire benn Bokk Yaakaar moo ko joxe waaye ñit ñi ku ci ne ak ñi nga ko gisee ñenn ñi ñoom jàpp ne naam sax tabaski kat lu am njariñ la fii si Sénégal waaye liggéey moom moo nekk ci kaw lépp. suñu ju defee feetu tabaski ci jour bi ak lendemain bi doy na quoi lendemain bi doy na gars yi ñëwaat topp liggéey liggéey ndax liggéey moom xam nañ ne c'est le travail paye quoi. loolu laa ko gisee ndax jour férié yi bëri na Sénégal waaw kon suñu tabaskee lendemain bi ñu noppalu mercredi par exemple ñu dem liggéey. ci fan yi dafay ëpp quoi ne Sénégalais yi jàppale jug jàppale seen bopp te xam ne liggéey moo ñu tax a jóg tabaski benn feet la dañ koy feete mu jàll ñu xëy suba takk jaaj yi dem liggéey moo gën ay noppaliku ay ñetti fan ñeenti fan waaw loolu daal moo si sama xalaat su ma sañoon daal askan bi. bu ñu jullee ba pare ku nekk xëy nekkaat si li nga nekkoon moo gën ay noppali yooyu. am ñeneen ñu ne déet mbir mi lu mën a nekk la ndaxte kat jouru tabaski dafa am njariñ lool te itam war nañoo mën a bàyyi xel ñi nga xam ne ñu ngi dëkk ci yeneen région wala fa ñu dëkk sori lool. man dama gisoon ne comme ñetti fan yooyu avant jouru tabaski ak jouru tabaski bi mu nekk 15 jours yoo xamante day dañ koy méngaloog feetu pak quoi parce que day jóge fi war dem julli ji ay Kaolack ñuy dem xam ay Touba waaye dem fu ne di fa julli. parce que xeetu retrouvailles na da ngay gis koo xam ne day toog ay presque ay weer du dem këram taw famille mi ngi foofu. loolu ñoom xalaat bu rafet la. da gis fête yu gën a ñàkk fayda ay gone yu ndaw ëmb ko ay mag yu kilifa ne ci réew mi ànd ceeg ñoom di fête ba fàtte seen liggéey donc tabaski booy xool si Sénégal. dafay fête boo xamante ne ni amul lu ko gën a important coonay tabaski rek war nañ la mën a fay may normalement une semaine une semaine u fête man noonu laa ko gisee donc euh, trois jours yi bon mun na nekk war na mën a nekk it. Moustapha Diakhaté moom li mu jàpp rek mooy feetu tabaski dafa am njariñ lool ba ñetti fan yi lu war a mën a nekk la li mu gis sax moom moo di jar na sax ñu wàññi yeneen jouru feet yi ngir tabaski ñu mën cee am ñetti fan ci ay feet. jaajëf Sadekh Top xibaar yi wuy ci benn wàllum ñu wax jëm ci euh, ki fi nekkoon kilifa ci biir Sénégal ci Sénégal ñàkk ko démb muy maitre Mbaye Jacques Diop moom moomee nekkoon fi maire Rufisque jiite woon parti bi ñuy wax PPC nekkoon tamit njiitu CRAES nekkoon tamit député di woon kàngam ci parti PS ay jamonoom moom moomee la Sénégal ñàkk euh, démb moom ci boppam ginnaaw wopp ji ko daboon ci loolu DTV laaj na kenn ko koo xam la di grand sëñ Dakar Abdoulaye Makhtar Diop jibal na kàdduy seedeem jëm ci ndemus yàlla si nga xam moo doon Mbaye Jacques Diop mu ne woon kii ku nangoo liggéey la woon waaye itam ku taxawal Sénégal fu ne ñu teewlu kàddu Abdoulaye Makhtar Diop mu euh, rawatina ci walu gox goxani walu collectivité euh, locale yi mairie yi association internationale des maires francophones liggéey na ci association des maires du Sénégal liggéey na ci liggéey na ci code des collectivités locales bu nga xamee ne war nañoo def fi ay communes d'arrondissement nekkoon na tam ku xarañ ci walu lettre ku ku a jàng li muy bind dañ nga koy rafetlu nekkoon tam expert bu maga mag ya mom dal dundum li nga xam mo wër dal moy mooy dëkkam ba ñu wax Tëngéej ak Sénégal liggéeyal na bu baax ñu ngi ñaan yàlla xare ko aljana Abdoulaye Makhtar Diop grand serigne de euh, Dakar doon yëkkati kàddu yu sedde jëme ko ci euh, kii génn àdduna di maître Mbaye Jacques Diop rédaction bu dee TV ak mbooleem direction bu dee TVM escaf gi yëpp ñu ngi yëkkati kàddoom njaal di ko jébbal njabootuk euh, maître Mbaye Jacques Diop mi génn àdduna démb xibaar yi fi leen koy lafee di leen gërëm bu wér ci ànd bi ñun ci DTV suñuy programme da ngeen jëf di bal ñee paax ci baal ñee paax itam di leen wax ni déwénit ñu fekkee tabaski incha allah déwénit yi lépp luñ ci ñaan naan ko borom bi nangu làq Sénégal fu yàq yëggul defal ñu koom-koom gu sax dàkk wér gu yaram naataangeem incha allah dana amaat xabaar ci 20 heures ci français li doon ak euh, ajaratu Aram Touré bale boobu dañuy bokk ñaanal ñëpp ñu bokk yenn jàmm ak salaam illa liqa